allah jërë ngeen jëf donc euh, inter ministère bu nga xam ni premier ministre moo ko présidé woon mu jeex mu am ay ndogal yoo xam ni moom la gouvernement bi jël muy ñaar fukki ndogal ak ñett ci nekk nag dinaa ko jéem a ci wolof bu ci jëkk dañ ni ministre bi nga xam ne moo yore forces armées ànd ak ministère de l'intérieur ak bu transport war a jox gouvernement bi ci diiru fukki fan ak juróom benn décret boo xam ni dana indi kuréel bu bees te benn officier jiite bu waaye ñu dégg que ministre bi nga xam ni moo yore transport terrestre

arrêté interministériel parce que ñaar ministres ñoo signé ni auto bi nga xamni moy transport de personnes diggante manam 11h ci goudi ba 5h du matin dootu dawati 11h ci goudi 23h ba 5h du matin bép auto bo xamni da fay def diggante deuk ak dëkk dawati c'est interdit. waaye aussi am na beneen arrêté boo xam ne amoon na buy organiser maanaam dem bëgg dikk bi ci Dakar arrêté boobu dañ ko beesalaat ñetteel dogal bi dañuy la ministre bu yore wàllum transport mu jël benn euh, arrêté ci ñetti fan yi maanaam soixante-douze heures pour mën a ni léegi manam durée d'exploitation maanaam auto yi nga xamni ñoy def transport dootu ñu def lu mat dootuñu dawatul mat fukki at pour ñi nga xamni ñom ñoy transporter askan bi fukki at ak juróom ñi nga xamni ñoy transporter les marchandises manam moy la durée d'exploitation auto bi bu ñëwee commencé daw euh bi nga xamni moy transporter askan bi fukki at lu mëna fukki at moom lay dawal doot ko mën a weesooti bi nga xam ni maanaam marchandise lay transporté fukki at ak juróom ñeenteelu ndogal bi defuñ la ministre bi nga xam ne moo yore wàllum finance ak ministre bi nga xam ni moo yore wàllum transport boole ci ak ministre bu yore wàllum commerce ñu ni maanaam fi lekk fukki fan ak juróom ñu wane benn euh, maanaam plan bi nga xam ni pour nous baisser le parc automobile y les 15 jours ñetti ministres yooyu ma wax yëpp ñu toog plan pour ñu def le renouvellement des parcs automobiles programme est nag day priorité ci PAP bi nga xam ni PAP 2A bu plan Sénégal émergent Le financement bi fu mu financement bi taxaw na waaye dafa subvention boo nous pour dugal ko ci maanaam dans le secteur des transports publics financement boblé, d'un dañ koy jox pour ñu mën renouveler le parc de transport juróomeelu ndogal bi D'un la ministre bu nga xam ne moo finance ministre bu nga xam ni moo transport ak ministre bu nga xam ni moo commerce fii léegi fukki fan ak juróom ñu génn benn texte benn dogal bu nga xam

def contrôle technique ci Dakar parce que les contrôles techniques yi nekk ci région yi contrôle visuel la Dakar dong moo am maanaam fële ca an centre contrôle technique boo xam ne dafa am ay machine léegi auto transport yi nekk ci Sénégal yépp yaa xam ni région ba mën ci nekk da nga war a ñëw Dakar fii passé wat contrôle technique loolu ndogal boobu di tekki léegi pour bañ auto yi bëre daje fële ca centre Dakar centre Hann bi les véhicules particuliers dañ del dogal boo xam ne pendant trois mois ñetti weer ñoom dañ leen bàyyi ñu bañ a passer seen contrôle technique pour que les véhicules de transport war a mën a ñëw passer les contrôles techniques donc fii au niveau de Dakar juróom-ñaareelu dogal bi ñu ni le ministre bi nga xam ne mooy wér wàllum finance ak. Euh, ministre moo xore moo yore wàllum transport daañu ubbi ci nu mu gënee gaaw yeneen centre de contrôle technique dans les régions bu centre de contrôle technique yooyu day nekk centre de contrôle technique yoo xam ni eh, am ay machine léegi dootu ci visuel daañ ko daañ ci def lu ma tollu juróom-ñett dans les régions à l'intérieur juróom-ñetteel ndogal ñu ne ministre bi nga xam ne yore wàllum transport mu jël maanaam di ay dogal yoo xam ni légui auto yi nga xamné ñoy transporter askan bi mais les véhicules de transport de personnes ak transporter marchandises dañuy bloquer sen compteur dootul wéssoti légui 90 km à l'heure juróom ñentel dogal ñi ni ministre bi nga xamné yoré walum transport terrestre mu jël ben arrêté ci lek ñetti fan arrêté bo xamné légui dañuy téré ñuy transformer oto yi manam ñu leen di defaraat di euh, yokk ay chaise ak wala voilà di ko transformer loolu dañ koy tere te ndogal bi fi lekk ñetti fan bu neexee yàlla dañ ko jël moo xam ne oto camion yi ngay transporté marchandise la ñu leen di transformer pour leen def ay oto yoo xam ni dañuy transformer dañuy maanaam dañuy yóbbu euh, askan bi donc loolu fi lekk ñetti fan daañu jël arrêté bu nga xam ne léegi kenn dootul transformé oto yooyu nga xam ne marchandise bi mën transporter ñu leen def ay oto yi transporter askan bi fukkeelu dogal bi dañ le ministre bi nga xam ne mooy wàllum transport terrestre mu jël fii ak ñetti fan dans les 72 heures euh, arrêté bu nga xam ni dafa dellu sotti transformation bi maanaam am na ñoo xam ne dañuy transformer seen oto di yokk le nombre de passagers maanaam place yi toog dañ koy yokk loolu aussi dañuy jël benn arrêté boo xam ne fii la ñetti fan ate boobu léegi dootuñu jël dootuñu rek di transformer oto yi di yokk maanaam place yoo xam ni toogukaay bi maanaam di def ay versailles yi ngeen xamul fukkeel ak benn bu ndogal bi dañu ne ministre bi nga xam ni moo yor wàllum transport mu jël fi lekk ñetti fan dans les 72 heures arrêté bu nga xam ni lépp loo xam ni maanaam porte bagage la dañ koy tere te bépp oto bu nga xam ni am na porte bagage.

Le transport et aussi manam xolat manam technique yi nga xamni mom le auto yi transporter ay askan transporter di di manam les spécifications techniques fukel ak ñet le ministre nga xamni walum mo euh ci ci fan di heures mu jël benn dogal boo xam ni wan yóbbu ko ci gouvernement bi fële ci conseil des ministres benn dogal bi nga xam ni pour xoolaat at at yoo xam ni pour am permis de conduire at minimal mooy at bu gën ndaw pour mën a am permis de conduire pour wala dawal oto boo xam ni euh, da ngay def maanaam soit taxi moom leex transport urbain wala nga dem oto yoo xam ni day dem diggante dëkk ak dëkk te at moomule du yées ñaar fukki at ak juróom pour oto yi def interurbain ak aussi transport de marchandise euh, fukkeel ak ñeent bu dogal dañuy ministre bi nga xam ne moo yore wàllum transport terrestre ak ministre bu santé ñu maanaam proposé ci nu mu gënee gaaw nan la service de santé gën a maanaam euh, yokk Euh, lu ñuy wax le certificat d'aptitude médicale visite compte visite yi xam nañ ni maanaam bët rek la ñu xool waaye dañuy yokk maintenant léegi yeneen euh, point yoo xam ni pour gën a mën a euh, maanaam seet santé yi nga xam ne ñoom la ñuy jox permis de conduire fukkeel ak juróom bu ndogal bi dañ ni ministre des forces armées ak ministre bu intérieur ànd ak le ministre des finances ñu manam yóbbu jox gouvernement bi ben dogal bi nga xamni pour que légui amane yi nga xamni lañuy fay wala infraction yi nuñu fexé ba nga xamni infraction yoy légui manam ordinateur lañ ko défé ak ay machine lañ ko défé feulé au niveau du ministère des finances fukiel ak juróom-benn ñu ni le ministre en charge des transports terrestres mu euh, manam def ben dogal bo xamni ni ko ci conseil des ministres pour ñu ne léegi-léegi borom ñaari ru manam maanaam Jakarta yek cag-cag yek ñu ni maanaam euh, le port du casque manam casque yi euh, dañ koy def mu nek lu obligatoire lo xamni ne léegi kenn droit dawal ñaari ru té solo casque

mën tas dem ci en région aussi ñu def école boo xam ne école former la ci ay euh, métier pour dawal oto yu demee noonu fukkeel ak le ministre bi nga xam ne moo finance ak ministre bi nga ministre bu transport ñu maanaam def texte dogal fii léegi fukki fan ak juróom ñu xool nan lañ mënee jàppale société bu mel Dakar Dem Dikk ak société nationale d'accord pour mën a yokk maanaam euh, par bu ñuy jëlee Dakar Dem Dikk yokk le nombre de bus yi nga xam ni moom la ñu yore ñaar fukkeel dogal ñu ne le ministre bi nga xam ni moo yore wàllum finance koppar yi ministre bi nga xam ni moo yore transport ak ministre bu yore urbanisme ñoo xool nu ñu mënee def ci département bu nekk ay fourrière automobile ak ay aire de repos ci booy dugg dëkk bi wala boo ciy génn ñaar fukk ak benn dogal ñu ni ministre de l'intérieur ministre des finance ak ministre bu sori wàllum transport ànd ceeg ministre de la santé ñu xooleeg yan dogal la ñuy mën a jël pour que bu accident amatee ñu gën a mën a am taxawaay maanaam wàllu les victimes d'accident maanaam ñi nga xam ni ñoo ci am ay gaañu gaañu et cetera ñaar fukk ak ñaar dogal ñu ne ministre bu nga xam ni mooy yore forces armées ministre de l'intérieur ministre bu yore finance koppar ministre des transports ñoo maanaam toog waxtaanaat ànd ak acteurs yi xool ban taxawaay la ñu mën a am pour gën mën a defaraat secteur des transports. bu ci mujj 23e moi mooy ñaar fukk ak ñetteel dogal bi ñu ne am na bu ñu le conseil supérieur de la sécurité ak de l'éducation daañu fexe mu dox nu mu pour mon recommandation et moi dogal yi ñu fi jël yëpp ñu mën ko topp benn ak ben te teg fu ñu ko wara ték doxal ko té duñ ci bayyi dara donc lii mooy ñaar fukki ak ñett bu dogal muy ñaar fukk ñett dogal yi nga xam ni maanaam moo génn fii ci conseil interministériel bi nga xam ni moom la premier ministre maanaam doon jiite léegi di leen gërëm bu baax di leen sant.